mbokk internet yu 4appuis euh, di wax ne Sénégal yàlla fi jàmm yàgg te ñu ngi toog ak euh, Sëñ Xaadim fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy mooy làmb ak actualité yi nga xamante ne xew na fa yi ci lamb ji waaw ba ñu commencé waxtaan bi di wax ne coow li nga xamante ni dëgg nañ ko Touba muy euh, waa a Amari ak population bu Touba ñu ñaan yàlla mu def si jàmm te comme si Muntaxa moom moom la fa yàlla teg am na si yaakaar ne bu ko déggee moom dina si wax li si war a wax parce que ay góor jàpp ay jigéen di leen simbi suñu xaadim jàng ma ko fenn waaw loolu laa amoon ci lu ma ci war a lu ci bëggoon a wax suñu xaadim di la nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyu moo ko internet yi waaw jërëjëf Bamba ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur sant sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaanal sëñ Muntaxa yi Mbàkke yàlla fi yàgg te wér di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla fi yàgg te wér suñu bunt ci sëñ Tuubaa muy sëñ Moodu Abib di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér sëñ Modou Habib yàlla na gudd fan ak wér di nuyu njabootu sëñ Cheikh Mbacke borom Daaru Rahman gi yëpp yàlla nañu yàlla taas ci barkeem xam nga ci di nuyu njabootu sëñ Abdoulahi borom dër gi yëpp rawatina sëñ Bass Abdou Khadar euh, di wax ne nag Bamba euh, di sant yàlla di julliwaat ci bi di sant Pape Abdou sama xarit sama soppe di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di nuyu Mame Boye Diao woon anniversaire am di ko nuyu di nuyu badu Diaw doomam di nuyu jabaram di nuyu njabootug suñ njabootug maam booy Diaw yëpp yàlla defal leen jàmm di nuyu sama xarit sama soppe mhm. eh, ministre Matar Ba mhm. di ku yàlla baaxal yàlla mhm. guddal fanam mu may ko wér di nuyu As Ndaw Ndukumaan Mbaye Sarr Sénégal Tour Pape Mayel Diop ñun ñëpp maa ngi leen di nuyu di Ades Oubela Ades sama xarit depuis Maroc di ma jàppale di ma tenir waaw Ades non ku yàgg la kooku moom ma njëkk yóbbu France bi may bëri Yékini muy Ades Ubela di ko nuyu di nuyu famille bi yëpp waaw. macha allah am solo si xaaral dama ñëw pour ñu ñaari com ñaari combat bi combat espoir la benn bi combat bu mag la Zarko ak Balla ak Balla ak euh, Gris Bordeaux mais dañu ko njëkkee ci Ada ak Zarko Ada Fass Zarko bi combat bi taxawee coow lu bari na trop ñii ne combat bi teel na ñii ne combat bi jaadoo na loolu noo gisee combat bo waaw jërëjëf di wax di nuyu mbont écornotu 4appuis bi yëpp maa ngi leen nuyu man Khadim diaspora bi ñëpp maa ngi leen nuyu mm-hmm. képp kuy déglu 4appuis bi rek wala ngay kiyam rek man maa ngi lay nuyu di la ñaanal di nuyu waa diaspora bi ci turu Khadim Ndiaye di nuyu sama supporter yi ñi may déglu yëpp ak ñi taxaw yëpp maa ngi leen nuyu di wax ne Bamba dafa am foo ubbee sànq mm-hmm. muy Amadou Samane mooy bu nga xam ne ñoo nekk Touba mm-hmm. ndax bu la nit jëlee jox la leen na la saytu ko wax dëgg yàlla dañ cee war a def si kéem laay kàttan waaye jël ay jigéen mhm. ay góor magi jëm mhm. taxaw naan da leen ni dañ koy di ko fóoyate mhm. am na luñ nar te dëkku Serigne Touba loolu amu fa boo dee seet sax Serigne Touba bëggul sax jigéen ñee góor ñi di jaxasoo rawatina nag ngeen ne yéen ay sécurité ngeen ba pare jàpp ay jigéen xam nga seede yàlla ne da ngeen koy ay góor ponkali magam jëm jël ay jigéen tëj leen cib néeg ne da nga leen di simmi da nga leen di seet tegu ko fen sëñ bi santu leen loolu sëñ bi santu leen loolu xam nga képp koo xamante ni yaa ngi def loolu defoo ko sa coobare bopp nga ko def te mbooloo moo gis dina am ñuy yàq am na ñoo xamante ne nag man dama yaakaar ni ñu am na ñuy saytu yoon wi carrément ñoo xamante ni ñu leen seex seen seen seen seex ngaa bu sant ñu ngi koy def normal mais am na ci ñoo xamante ni teguñu ko ci yoon ndax affaire réewane lañ ci loxal bu dee bay jël ay jigéen bamba di leen tëj ci néeg simi am na leen lu ci jublu loolu sëñ bi andu ci tey andu ci képp kuy murit mer nga ci loolu te sëñ Xaadim même stade bi sax ba demee policiers yu ñooy ñooy bamba yow policiers yu jigéen jigéen dañuy policiers yu jigéen dañuy taxaw góor yi taxaw ni xam nga boo ñëwee di góor sa góor moo lay seet boo ñëwee di jigéen sa moromu jigéen moo seet mais loolu mooy jaadu xam nga ñoom bu ñu demee ba def sécurité waruñu mënul ay jigéen bu buñ jàppee jigéen boo xam def na ko sulu noonu ñu boole ko jigéen ñu saytu ko ah mais ay góor yu magam jëm di saytu loo xamante ne suñu fekk ab sëtu sëtum sëriñ Touba bi nga xam moo leen dénk yoon wi ab sët ñëw di wax ak ñoom ñu bëgg ko ba damm ko mais ñi am na leneen lu ci jublu lu dul loolu lii war nañ cee jóg nag ndax buñ ci jógul mën na indi leneen waaw loolu am na solo message bi Serigne Khadim te yaakaar naa Serigne Mountakha moom la fa moom la fa yàlla tek mu jiite Touba te yaakaar naa bu ci déggee tamit lañ si li a jël comme dogal dina ko si jël macha allah am na solo loolu benn message la rek léegi suñu xam dañu ñëw bi war a dox si diggante Ada Fass ak Zarko mu nekk combat dañ ko njëkkee ci Ada Fass ak Zarko bi combat bi taxawee coow lu bari na amateur yi bi dafa teel am na ñu ne combat bi jaadoon lan nga noo gisee combat boobu non Ada Fass car macha allah di encouragé Bass Mu Ndaw di félicité Ada Fass mm-hmm. koroog ku gis bas bas bas mu ndaw këli mm-hmm. ni ñun niñ ko encadré ak niñ ko mm-hmm. entraîné indi ko ci làmb ji jour boobu mm-hmm. nga xam ni bas dafa toog ci ndabam mais biñ duggee ci bi ci biir géew bi ni Ada Fass forcé bas ne ko man lii laay bëri yow te da ma ciy fekk si ci ngay xam ne booy bi il est intelligent te ba pare liñ ko dee moom li ko ay encadrement am dee bëri na ko c'est que bas kay la liñ ay encadrement am dee moom la bëriwul moo tax li am am moo tax mani ni Zarko bu jàppee ni Ada Fass mi ma gis bu Zarko jàppee ni moo ko mën bi ceeb Pape Abdou Fall li mu def sax xamu diggante Grand Yoff mm. ak Fass ak Fass te Ada Fass mi bokk ci espoiru Fass yi ñu gën yaakaar mm-hmm. muy doomi Fass mm-hmm. ñu boole ko kon ak Zarko mm-hmm. kon c'est parce que da ngay xam ni combat du combat boo xamante ni combat mbojo mbojo la te gis nga Bamba dama seetlu leen sax ci lemb làmb ji léegi gis nga espoir yi xalaat naa ni ñoo fi jële mbër yu mag yi gis nga ni ñuy mobiliser dalay wóor ni yow. Mm-hmm. Ada Fass Zarko. Mm-hmm. suñu mobiliser stade bi. Mm-hmm. di nga gis combat bu neex. di nga gis bëri bu neex ndax Ada Fass nag. ah. booy bi nañ ko bàyyi xel de. nañ ko bàyyi xel dañ ko war a bàyyi xel de. dañ ko war a bàyyi xel de dafa ci yow. non teelul non non teelul mbër muy génn toujours nii lay demee rek. mbër muy doog a jóg toujours nii lay demee buñ la joxee mbër. dañ ñaan dafa teel ci yow. mais Zarko mi ma gis. champion hors la. Mhm. Zarko du maye dara ku xool diggante ba nga nga xam ni Zarko champion la. Mhm. mais nag mi ngi doog a bëri xale. kii xale la muy Ada mhm. Fass. ba pare nekk ci yoonam. ba pare ay techniciens yor ko. te te te te Zarko. bu mu cof combat bi. mu ngi boo bëreeg boo xamante ni am na technique. mën na bëre. te li mu bëgg nga bëreeg yow moom ngay bëreeg moom. seetlu nga loolu man loolu ma gën a jaaxal ci Ada Fass. Ada ba léegi loxoom jugul contre Bass. loxoom mhm. jugul ah, dafa siggi waaw dafa siggi jon ron mhm. pour bëgg bas ñëw mhm. dal ci koom contact bi rek la bëggoon loolu lépp wax naa ko bas ah. mais bi mu defee contact Ada Fass bu la rombee di dem da nga naan kii am yambar la mais bu duggee ci biir géew ci ngay doo xam kan mooy Ada Fass bu am talent la ah. mais nag mi ngi mi ngi bëri njaago boo xamante ne jor ko borom bopp mbaam mi mi ngi xama nag bi dinañ bopp mbaamam déet mais combat neex la Pa Abdou Fall tëgg xama saison bi lañ koy bëgg xama saison prochaine mais c'est gisoo noonu ne Ada Fass mënoon na jël benn combat ci ay moromam benn combat benn combat maximum soo ko mën a jël ay soo ko dugg ci génération ñoom Zarko non ku bëree ku ne ku bëree qualifié man bëree qualifié am ci ndam képp ku ñuy képp koo bëreel man jàpp naa ne war nga cee mën a génn jàpp naa ne war nga cee mën a génn mais Zarko nag du nangu nag Ada Fass jaar ci koom jàll. Ada Fass mi ngi passé baclo baccalauréat nag dama xam ndax da koy dagg du fis wala day am. waaw loolu laa xamul. mais Ada Fass mi ma gis ak waa Fass ñu ko gëmee. Mhm. ba pare am jàppale bi. Mhm. xam nga. te yaakaar naa ni boo ko gisee ni mu toll noonu doole jëpp na noonu. Mhm. Ada Fass. soo xoolee. ni mu toll noonu ndax bi mu bëreeg bas. bi ko bas cherché Arafaas teewul fenn ci gàncax bas wala feneen. Hmm. koro loxo yëpp la rek crocheté épaule bi dem ak kon di nga xam ne boobu il est technique wax dëgg hmm. yàlla. Hmm. mais Pape dafa al teg na de. mais mais dañuy gis bi mu bëri Baye Mandione ni ko doon provoqué ci géew bi. provoqué ko ba comme ba amateur na làmb ji mën naa yàqu est ce que loolu tey bu ko indilee Arafaas ak ni ko ëppee expérience ci làmb. loolu mënut a mënut ko jaxase. non du ko perturbé du ko am na xam-xam am na benn technique bu ma gis ci moom heure bu heure bu bëri yow du dugg sa langue gis nga biñ nekkee ci biir géew bi sax bas moo koy fekk si mais moom mos du fekk si bas fi mu ne seetlu nga loolu avant arbitre du souffle mais kon kooku am na intelligent boobu te ar te Zarko yi muy def yëpp pour perturber la li mu ci bëggoon mooy perturber njoon njoon mer loolu rek ci jubloon njoon mer arbitre ne fër mu ne kut ko kut naa rey loolu la ci Zarko di jublu mais Ada Fass xale la na boo seetee ba lamb ji li muy rëy rëy rëy Ada Fass yeenuwul bés bi dafa taxaw rek fi mu taxaw mhm. di lewaatoo xam nga di lewaatoo ne bas mhm. lii laa bëgg a bëri yow te nag ma ci fekk si ba yóbbu ko ci langam mhm. ca lay am ci langu Ada Fass la amee kon ci nga xam ne Ada Fass mi yooyu yëpp dina ko sóoraale waaw Balla Balla Giri euh, Bamba yow combat boobu waaw yéen auditeurs yi ak auditrices yen yéen laay waxal combat boobu man bëgguma ci wax sax Bamba ah, waaw ci de xam nga man musuma yërëm mbër mais maa ngi doog a yërëm mbër mhm. ci ci combat Gris Bordeaux ak Balla mhm. analyse rek laay wax mhm. Balla Gris ñoom ñaar ku ci ñàkk combat bi fan nga jëm moo internet yi xam-xam laay wax ak yéen Balla Gris ku ci ñàkk combat bi fan la fan la sa di toll ku ci ñàkk combat bi émission yi am ci làmb yeeg rajo yi sax dootoo ko bëgg a déglu. donc leen mbër dina dina nekk ci làmb mbër dina nekk ci làmb di bëre di gagné. dem ba ci biir mhm. ay tolof tolof ñëw. Mhm. mu dem ba affaire làmb sax boo ko dee wax dootu ko saf. Mhm. dootul bëgg ni sax combat nangam ñu ngi koy publicité dootu ko bëgg a dégg. ba dama gis combat bi ñun ñaar ku nekk ku ci nekk ab indi décision ci combat bi. non moo la dégg ko dama la ba pare dama la ñoom ñaar ku ci daanu fan nga jëm ba pare. doog a ñëw nag ci biir combat bi. Balla ñaata combat ko dese. du ñaar bu bëree Gris Bordeaux ñaara koy des. boo ñaar ak Eumeu Sène hmm, ñeent la woon perte na benn bi su perte benn bi ban moral lay am pour mën a bëree jéeg ñooñu analyse laay joxe rek waxuma dañ koy daan dama ne analyse laay joxe. Gris su daanoo ci combat bi ak tolof tolof yi mu nekk ba mu dalee xëccu roi bi hmm. ba léegi ak jafe-jafe yi mu am hmm. su ñakkee combat fan la jëm. waaw ndax moralu entraînement bi waroon na nekkaat ci moom. pour mu gagné yeneen combat yi ndax est nekk ci moom. Gris Bordeaux fa mu jógee ci làmb ba léegi di xëcc roi bi bëri feeg champion yëpp hmm? ah, ay Modou Lo ay Eumeu ay Balla Gaye ñun ñëpp mu bëri feeg ñoom hmm. ak fi mu fi fi mu nekk ci làmb ah tey bu ko ñàkkee fan la jëm mën na fay jaare sax tikki ngeen mama wala mu ci ñam franc xam nga moo lay wan kon làmb ji ku ci nekk sa bakkan nga ci teg ma wax la ko nag gis nga combat bi Gris Bordeaux mii ma gis bakkanam la tek ci combat bi Balla daan ko ko te jàpp na ni moom day daan Balla te Balla fi mu toll nii moom sarax ndongo daal war a mu tibbeg dooleem foofu la tol ndax bu daanoo rek ñëpp ne Balla c'est fini moom ñëpp ne c'est fini Bamba loolu moom buñ ko raay raayee sax nañu waxante dëgg moo tax man la combat bi ku yaakaar ne day day yomb ci ñoom ñaar da ngay nax sa bopp bee passé dañoo bëre bañ jox Balla décision par arbitre xam nga Gris Bordeaux la ko xañoon loolu xam na ko bii yoon nag du ko may Balla te Balla bi ma gis nag décidé na moom gis naa ni gis naa ni décidé na te jël na benn ambition boo xamante ni la la la 7 août la koy ñëppay xam la ñëppay set 7 août la ñuy xam ni Balla suy bëre xale bii di euh, euh, euh, Boy Niang te koy tracé wala du ko tracé le 7 août bi lañ koy xam Gris Bordeaux le 7 août la ñuy xam ni doo mi ngi des ci làmb ji ba léegi ak physique wala mi ngi des ci làmb ji a léegi ak fin de carrière kon combat bi nag jar na bàyyi xel de mais mais mu mel ne ñoom ñaar dañoo xamante dañoo xamante bu baax dégg li ma la dañoo laale ñoom ñaar parce que dama gis ñoom bu ñu bëree mm. bu njëkk ba nangul benn ñoon bala laal ngem li ngem dégg li ma la bala xeex moo ko mën a génne ci combat bi pas xeex bi mu def bi passé xeex boo xamante ni xeexu rapproche lay doon bala Faye mu juwaat loog moom loolu rek la mën a génne ci combat bi Balla mënul ñëw jàpp Gris Bordeaux tamit sans mu xeex ak moom te bala li mu bëgg xeexu Gris Bordeaux jàpp ko ci nga naa sax giri na ko soo bëggee ñu mënoo ko sax yow nee na Balla yow mënoo ko cinq minutes yi mënoo ko benn trois minutes bo xamante ni ah étincelle yi day tàkk kon ña ngay commencé warante foofu amul benn mbër buy def signature ne la mhm. dañuy taxaw cinq minutes ñu xeex doo ko daw jàppante ku la ko wax ma ngi lay njuy mhm. kon làmb ji ay ndëkk sërëxën ci du yomb de ku yaakaar ne day yomb ci ñoom ñaar du la ku ci daanu mhm. dugg nga ci biir saako bi xanaa nit fekkaat la fa may la loxo mais ku ci daanu mais nag ci Balla la gën a danger ci Balla waaw ndax Balla dafa am combat yoo xamante ni ay combat capital la xam nga ne Eumeu Sène c'est un grand champion Boy Niang c'est un grand champion. nga jógee ci Bombardier. ñëwaat dal ci Gris muy grand champion. le nouveau Tigre de Fass. ah <laughs> man damay damay wax ni sax ma dama leen a yërëm. damay tëdd ba guddi di xalaat ci loolu ko parce que Sëñ Tuubaa ndax lamb day toll foo xamante ni sa bakkan sa buntu kër nga koy taayil ñoom ñaar ñëpp ñoo toll foofu nag. Gris Bordeaux dafa am retard ci làmb dafa am retard ci làmb te Gris daan Balla moo koy delloo si. bu baax sax Gris daan Balla adversaire yaa ngi taxaw mais bu daanoo. est-ce que dina jot ci adversaire yooyu kon Gris xam nga ne du ñëw fooy lamb interdit pour ñoom ñaar ñëpp defet naa ko wax Bamba loolu yàgg naa ko wax nit ñi dañuy dañuy xamuñu li def mhm. ku ci ñàkk combat bi lan la lay jural ah. Bamba boo dëddee sa kër internet yi bu ngeen demee ngeen xalaat ci li wax tëdd leen ba guddi mhm. ngeen xalaat ci ñoom ñaar ku ci daanu fan la lamb di yóbbu fan la la yàmb di yóbbu la la yóbbu waaw wax sax mais ca simére a daanu dina bëreeg ñaar ñe daan dina bëreeg ñaar ñe kon kooku lamb lan la ko war a jaral. waaw mm-hmm. ci balla mm-hmm. ndax giri mën naa daanu sax dem yootu jiwaat ay ñoom franc bu ko neexee may leen saas. Mm-hmm. mais balla amatul droit jël keneen lu dul eggale ñaar ñi. kon balla enge baa ngi ci yow de. waaw bi mi ci yow. maa ngi ñaan nag la ko meilleur gañ. <laughs> mais lamb ju neex la nag. lamb jooju moom. ku ye ku ku yéex sax doo am place ndax ku njarndeem la man maa la wax lay xaadim njarndeem la léegi Gris day wàcc ñëw toog ci tànk xeex ak Balla. Hmm. léegi ci loolu. Hmm. ci loolu benn question boobu la ñuy jeexalee. te boo booy doon booy doon Balla. waaw mu nga war ko conseillé mu bëree Gris. Hmm. lamb joo xam ne lamb ji day gaaw. Euh, te du yàgg a jël am lan lay doon la koy conseillé. boo ko dem naa ko ni nga bi passé benn baax dara baaxu ci. bi mu bëree bi passé. waaw moo nekk la conseillé am mais Balla ay erreur rek la doon bëree ci Gris. da doon da songi. yaa ngi gis da koy tëb di ko songi. mais Balla mii ma gis am na entraînement de. changé na kon yaakaar naa ni. Mhm. gis nga ko ba ba léegi gisoo ñu esthétique ko def dara. mu ngi nëbba ci ruqam xam xamul yéen journaliste sax xamul leen ko dara. kon làmb mooy toll foofu. Mhm. mais Gris Bordeaux nag. Mhm. moom dafa am lu mu amel waa Fass. ay victoire yu mu ameel waa Fass. ba rakkam yaa ngi nii barki démb. gis nga leen ñoom Serigne Ndiaye ak ñoom ñëpp. ñu ngi def ay preuve te ci keppaaram lañ màggee. kon moom nag il faut que mu bon exemple. moo tax baccalauréat yi ci moom fii lay duggee ci làmb fii lay delloo ginnaaw ci làmb analyse la rek ba ma joxe mais bu nit ñi tëddee tamit ñu xalaat ni Gris bu ko Balla daanee fan la jëm mais Balla mi nga xamante ni moo jël quatre avance moom bu ñu ko daanee mu am deux deux défaites yi ci des ndax moralam dina ko may mu eggaleeti ko ndax nit moral la moral rek mooy nit nit kuy dox koo gis sa xel dafa dal nga ànd moral mais boo amul moral li nga liggéey sax di nga bëgg a jóg sax salal pour liggéey tëddaat ndax moral mooy nit mm-hmm. mais combat bu combat bu danger la si ñoom ñaar musuma yërëm mbër mais ñaar yi dama leen a yërëm bat siñ tuwam baj fi combat bi toll si ñoom ñaar ñoom ñëpp ak seen i seen i encadrement ak mm-hmm. seen i supporter mm-hmm. géejawaay moom nelawutuñ ba yàndoo defi lu fi kenn mës ta defut danga fa boo fi defee lu fi kenn mës war a jëf lu fi kenn mës ta jëf mooy boo li nga wax ni bu fekkee ñaari mbër ñaari dañ ko ñëw dañ ko indiwaale ci biir bi bëre waale kenn ku ne xam ne bu ma daanoo tey sama carré li des dina bu baax a baax est-ce que kon combat bi du mujj ba fa combat ba mujjee woon rek. match nul. non par wala par décision arbitre. par décision arbitre waaw. décision arbitre moom xeex ba kenn arbitre atte atte ne kii mënatul a bëri te loolu victoire la moo tax man la combat bi jëri mi ma gis parewul pour may Balla dara te Balla jàpp na ni làmb ji bu doon suba suba mu daan giri waaw ndax Balla bi giri waxe ba pare Balla nee na ko li nga xam gëmoo ko kon làmb ji attention de. ku yaakaar na ngay da day yomb billahi da ngay nax sa bopp lu jafe daal lay doon lu doon macha allah am na solo suñu xarit di la sant di la gërëm di la bàyyi nga tàggoo waaw di nuyu monde internet yëpp di wax Pape du Fall combat bi mu jëm combat yi ci saison bi yàlla nañ ci egg ak mais ci Ada Fass Ada Fass rek tët tët tët njërnee ma bopp di nuyu Mame Boy sama xarit euh, borom kii bu borom kii bu neex bi anniversaire bu neex bi di nuyu uh, Pa Abdou Fall encore di ko nuyuwaat di nuyu Matar Ba monsieur le ministre As Ndaw Ndoukoumane Pape Mayel Diop maître El Hadj Diouf di nuyu Ades suma xarit. non ah, mm, toujours maa ngi koy tudd maître c'est mon ami maître sama sama wëlëral démb tey di doog a di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm di nuyu ñëpp di nuyu sama xarit yeeg ñëpp su suma badu Diaw doomu mbay mi moom maa ngi booy Diaw di xale bu yaru mm-hmm. yàlla ñu yàlla defal jàmm macha allah di leen la gërëm suñu xaarim bu baax a baax ñu doon si 4 appui surtout waa diaspora bi nag ñu ngi fépp ci àdduna bi di di di liggéey lu yóbbu seen njaboot ay Russie Allemagne États-Unis Italie France fépp ñu nga fa ci àdduna bi di la ñaan loolu yombale leen bu baax a baax a di santaat a baax di ñëpp di leen jox rendez bi la ñoom incha allah beneen invité